di leen ndokkeel di leen jéggalu bu baax ci kàddu gi nga xam ne moom la ñu sëriñ Saalihu jëlloo bu mënoon a ñàkk duñ ko jël ndax bu dee xam-xam ñu ñu ko ëpp li foofu ñoo nekk ci jataay bi bu dee attaque teg gi nag lépp suñuy kilifa yi ñu ko jàngal ñi ngi nekk ci jataay bi waaye nag ndigal ci ci yoonu murit laa tafalu shay'an bi xayri isni fal isnu shartun fii xaboli sahni sëriñ Tuubaa nee na bul jëf jën jëf lu duggate ko ci ndigal ne nga nangu jëf ja ab sart la ci nga am ci ndigal ni yoonu murid doon doxe démb ba tey jii noonu rekk lay doxe cheikh Mouhamadul Fadil moom sëriñ Tuubaa ak cheikh Mamadou Moustapha mbooloo mas naa ñëw ci Cheikh Mamadou Moustapha am lu ñu doon sàkku ci moom mu yebal leen ca Cheikh Mamadou faadal ñu dem ci moom waaye bi mu leen di yebal dane dem leen ca sama doomi sëriñ ja biñ yekkee ci Cheikh Mamadou Fadal ne ko ci Cheikh Mamadou Moustapha lañ bàyyi ko mu ne sama doomi sëriñ ja nga xam ne ñépp amul kenn ko ci jàppe sëriñ Touba baay wala maam wala mbokk ñépp ab sëriñ lañ ko jàppe te Maam Mor Jaara Saam doy na ci sëkk misaal lim bokk ak sëriñ bi ak li mu defal sëriñ bi gëstukatu histoire yi ba àddina sosoo ba tey kenn mësu koo dégg bokk na ca bokk ak nit ndey ak baay mag ko fuuf jàngal ko yar ko wëlbati ko topp ci ginnaawam ni ko aslamtu nafsi kenn mësu koo dégg ci àddina Mamor jaar ak Serigne Touba bok nday ak baay soxna jaaro bu so ma ca proxan moy sen wayjur wu jigen Serigne Mor Anta Sali ma ca dekkali moy sen wayjur bu Mamor Jaara mak Serigne Touba moko jangal yitam xam-xamu Qur'an ak tafsir bokk ci itam ñi nga xamne dimbalé nañ ko lu bari ci walu diiné waye wëlbati ko jébbal ko boppam ne ko aslamtu nafsi moo tax boroom saam daan na wax ne bu doon baax rek ak ragal yàlla fa suñu boroom duma fa fekk morom waaye sëriñ tubaa day lu kenn xamul wa anna al fadla bi yadillah yu'tihi man yasha wallahu dul fadlil azim wallahu yaxtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dul fadlil azim nee na suñu borom def gi muy def lu ko soob Maam Mor Jaara nee ci sëriñ Tuubaa la ko gëmee digganteem ak sëriñ bi doon doonoon loo xam ne ca jëf buñ ko doon waxtaane waxtaane ay fan lay doon waaye doy na sëkk rek li sëriñ Tuubaa wax ci moom waaye doy na sëkkit li mu wax ci sëriñ Tuubaa ba ko tedd ki jëmee Daaru Salaam Dajek ma Mor Jaara borom am kaddu yu ko serigne Mor Jaara wax serigne touba ne ko serigne Mor mu ne ko Mbàkke mu ne ko li ëpp solo moy li fi dajale nit ñi te séquma ko kenn ku dul yaw lu ci nekkul ci man ci yaw la ne lu ci nekkul ci yaw ci man la nek xasida gi jàngkatu xasaay di di muy minanu bakhil khadim ci barra anil min minal amradi wa kabba man ankara bi bi ko sëñ Touba bindee ba noppi bi muy tëj xasida gi rek Maam Mor Jaara boroom saam ne jalañ ñu ne ko ah, ku tedd ki de dafa doon bind am na xasida gu muy soog a noppi Maam jaar a tari ko ca bopp ba ba ci cat li ñu daw ñëw ci sëriñ Touba di ko wax si ndax yéemu gu ñu yéemu ci xasida gi Maam jaar Jaara gisagu ko ba pare ba pare tari ko sëriñ Touba ne leen xanaa waxuma leen woon ne lu ne fi man ma nga fa moom lu ne fa moom it mi ngi fi man Mamor Jaara borom saam doon ku dimbale yoonu murit ba dara dul dara ponkal yi ñu fi tudd kàngam yi ñuy tudd ci yoonu murit ñépp Mamor Jaara borom saam moo leen jàngal moo leen yar tàmbale ko ci xaadim rasul mi nga xam ne mooy suñu yaakaari àddina ak alaaxira Mamor Jaara ko jàngal borom daarul mooti sëriñ Daamu Abdourahman Lo doy na sëkk boo jëlee référence yi ñetti ponkal yi nga ne Mamor Jaara moo def li nekk ñoom Mamor Jaara borom sàmm ko def ci ñoom nga jël doomi sëriñ Tubaay Cheikh Mamadul Fadil lim doon wax ne ku dul ka ma joxe woon ak kam ma joxoon maa la raw muy sëñ Tubaa ma ma joxe woon ak Mamor Jaara ma ma joxoon sëñ Fallou nee na ku dul ñoom maa la raw kon doy na sëkk tegtal ci ab cëram waaye dimbale gi mu dimbale yoonu murit ca tàmbali gi yoon wi ba sëñ Tubaa sañcee yoonu murit 1883 ca Mbàkke Kajoor 1886 mu sanc Daaru Salaam diggante 86 ak 88 bi mu sañcee Touba sëriñ Touba dafa daan jékki-jékki fàddu maanaam nëbbu kenn dootul xam ci moom dara mag ñi jaaxle lool diggante boobu nag mbokk yi ku ne am na kenn ku doon defal murid ku dul Mamor Jaara borom sam xamul histoire borom sam mo daan dajale murid yépp daru salam ba ñëpp dajé mu ne leen xamna naa jaaxle ngeen lool waye dama leen bëgg xamal ni ki leen fi dajale negul ba dajale leen fi sok leen wutale añ bu mu leen di añale waye dafa am añ bi ba depp ko fi barab sok leen dajale muñ leen tuuti rek da ngeen añ bu ko defé xol yépp daal di fexat doy na sëkk diir bi sëñ Touba nekkee ci géej gi yépp Mamor Jaara borom saam la daan bind ay leetar di wax njaboot gi ne na ngeen topp ci gannaawam muy seen kilifa Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin diir bi sëñ Touba nekkee ci géej gi da koo joxoon ndigal lam daan liggéey moo di ko def ñetti xaaj benn xaaj bi mu jox ko borom daaru mooti fere yi mën cee dund beneen xaaj bi ñu yóbbante ko teg ko ci géej gi dugal ko ci kërgoo yi mu fekki sëriñ Tuubaa ca Gabon waaye beneen xaaj bi Maamoor Jaara borom Saam la ko daan joxloo doy na ci sëkk misaal jàpp gi ko sëriñ Tuubaa jàpp la woon boroom Saam Cheikh Ibrahima Fall yaakaar naa néew na néew na xëy na ku dul waa kër sëriñ Tuubaa yi mu tudde la doom waaye Maamoor jaar borom Saam tudde na ko doom mooy sëriñ Mbàkke Fall Mamor Diarra la ko tuddee dégg naa ci sama waajur sëriñ Moustapha Beto mu nettali nettali boo xam ne yaakaar naa ñu bari ci mbokk yi dégg nañ bànd bi sëriñ bi waxal ko boppam mu ne waa asamaan waa kow dañ doon werante lu yéeme laa leen di wax di werante ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nii mu toll amul kilifa ci kaw suuf am ñu ne ah ku yàlla bind nag dana am kilifa Seydina Jibril ne xaar leen ma dem laaji ko ko te ñëw bi mu dikkee fekk Sëriñ Tuubaa mu toog ci toogu bi Seydina Jibril toog ci lal bi waaye waxul nii la ko sëñ Moustapha nettalee nee bi sëñ toogee ci der bi ci ci ci laltaay bi Seydina Jibril toog ci lal bi nee na nes tuut jaar Jaara borom saam daal di nuyoo sëriñ tubaa wàcc laltu gi mu toogoon puus ko Mamor Diarra borom saam waaye Mamor Diarra itam xam gi mu xam cër bi ci sëriñ tubaa ak ma ji nanguwut a nanguwut a toog ci laltu gi mu puusaat ko sëriñ tubaa ñu di ko puusante ba ñoom ñaar ñëpp dañoo maase toog ci suuf sëriñ tubaa attaaya xelli jox Mamor jaara borom saam Seydina Jibril jekki-jekki ne mes sëriñ tubaa ne ko borom saam mu ne ko Mbàkke mu ne ko ndax xam nga ki toogan ci lal bi kan la mu ne ko déedéet Mbàkke mu ne ko Seydina Jibril la de ne ko ndax xam nga lu mu fi doon wut mu ne ko déedéet mu ne ko dañ doon werante ca kaw asamaan ndax am naa kilifa wala déet mu ñëw di ko seet si waaye bi mu gisee may attaay di xel di lay jox xam na ne am naa kilifa loolu sëñ Tuubaa ko waxal boppam. doy na ci sëkk misaal bi mu yóon bi mu yónnee woolu Mamour Jaara borom saam borom saam ñëw. mu ne ko borom saam mu ne ko mbàkke mu ne ko duggal ci biir néeg boobu am na gan gu fi nekk nga nuyoog moom Maamoor Jaara borom saam dugg ci biir néeg bi fekk fa ak kilifa mu nuyoog moom mu génnee sëñ Tuubaa ne ko borom saam mu ne ko mu ne ko ndax xam nga kooku mu ne ko déedéet mu ne ko Muhammadu Rasulullaahi la de borom saam tàmbulee rootal ay xéewal mu ne ko moo ne yaa ko taxoon a jóg de daan ne ko nee na ma nee na ma kuñ ko tudde ku nekk yaa ko ci gënal yow borom saam doy na sëkk misaal ci bi mu wàccee liggéey ca Mbàkke sëñ Touba yebal sëriñ Mbàkke Bousso mu dem taxawu ko sëñ Touba ne ko boo demee sëñ Mbàkke waxal ma leen nee leen ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defee nii ca Makka ca Madina saxaaba yi tiim ko ba suñ jonn yàlla yi tey ku ni toll mi ngi soog a tëddaat ci kaw suuf xoole li fi jaar ci ay nit ñu baax ay sahaaba awliya aqata umul awta kenn xamul nu mu toll mu ne ko ba yónnent bi tëddee ca madina sahaaba yi tiim ko ba fii ñu toll ko ni toll mi ngi soog a tëddaat ci kaw suuf kon loolu doy na sëkk ñu tegtaloo ne yi sëriñ saalifu mii dafa jaay ak cëram jënde ko ak taalibe waaye bu dee cër ci sëriñ tubaa kenn ëppale wu ko ndax mom rek ka bokk ak seigne Tuubaa ndey ak bàyyi moom rek itam mo am garatu magi mag bari na ñukay laaj ne lu waral mbokk laaj na mako dembu mané ko kuy seigne bu mag bi mu ne ma seigne touba mané ko bo bindono lettre ci États-Unis ñu wàcce ko ci rapport beles Diagne bi nga bind ci touru seigne bu mag bi rek yam ca bu wacce dañ nan nañ ko yobbu Touba seigne Muntaxa ko fi nekkal seigne Touba seigne bu mag bi Mamor Jaara di magam moo tax ñu di ko tuddee magi mag moom rek moo am garaat boobu waaw waaye nag loolu lépp itam mu jaay ko jënde ko ak taalibe wëlbati ko topp sëriñ tubaa ànd ak moom di ko liggéeyal yaakaar naa mbokk yi loolu kenn mësu koo gis ci àddina mag topp rak jébbalu ci moom jox ko boppam di sàkku ay ndigalam di moytu ay tereem ku bëgg a xam yomb na wala déet bal jébbalu de essayé yàlla sa rakk yónni la nga dem ñëw rek ndax yomb na ndax mën naa nekk kon dafa am loo xam ne cërub suñu borom la kon yàlla nañu ko yàlla fayal dama bëgg nag sëñ Saliou waxtaane borom saam di xaj ci jataay bi waaye dafa am ay tomb yu gàtt rek yoo xam ne bu ma sañoon daañu profité ci diggante bi dénkante ko bala ñuy jóg ne leen ñaar yi ku ci sax foo mën a ne yaay ki fi man ku ci saxul nag jotewu ma ak yow dara doonte yaa ci sama bunt bi mbokk yi tombi sëriñ bi dafay loo xam ne moom lañu mën a jariñoo àddina ak alaaxira waaye dafay loo xam ne itam luñ ci mën a amit du doy te waxtu yi dafa xat te boo nekkee ci jataay nekk fa ak say kilifa ñu mag la ëpp la xam-xam lool jiitu la ci Sëriñ Tuubaa ngay wax ci seen kanam dafay doon wax joj topp ndigal rekk lay mën a doon waaye du mën a doon am njàngale ndax bu dee njàng rek ñoom ñoo la jàngal waaye sëñ Tuubaa nag dafay loo xam ne àdduna ak àllaaxira moom bi muy ñëw ànd na ak mu bare bare bare ñu nuyu ko bu baax mu ànd ak ku naan Modou Ngom laaj Sam Notaire bokk ci délégation bi moom it ñëw na Serigne Cheikhouna mu Cheikh Moustapha moom Serigne Salif borom njuralal la gënal ndokkaan moo ne yegg si na ñëw na moom it mi ngi ci bas bi toog ànd ak moom ba bis bi moom bi muy ñëw ànd la ak mbooloo mu bare bare bare ñu nuyu ko bu baax mu ànd ak ku naan Modou di laaj Sam Notaire bokk ci délégation bi moom it ñëw na Serigne Cheikhouna mu Cheikh Moustapha moom Serigne borom njuralal la gënal ndokkaan moo ne yegg si na ñëw na moom it mi ngi ci bas bi toog am ci bis bi fa bokk ci pare yi mooy sëñ Abdoulaye mi toog bi muy ñëw mbooloo bu bare bare laan doon doo di ku baax waaye bokk ak sëñ Saliou mi toog Mamour Diarra borom sàmm ji ma sëñ Mamour wax na ko léegi jaara maam Mor Jaara borom sàmm gën laa jige soxna jaara kon nag mbàkk yi ñaan sa toogaay bi yàlla yàgg sëriñ Sall yu na ci lool soxna buri bu sëriñ Maam Mor tuubaatul moo nit na mi ngi toog di sëtu maam Cheikh Anta Gaawaan borom dërëm ak ngërëm borom jannati ilal jannati bàyyi Cheikh Mourou Mamadou déglul Moustapha ceytu sang bi ngir sang benn moom cey Serigne Saliw sunu sang bi ma fenta tey ni wayati sang bi ngir sang benn moom cey Serigne Saliw sunu sang ni ubbi na buntu ye xeewali ubbi na buntu yee xéewali walwale ni ku nekk am na cee ci Serigne Saliou sunu sang bi xéewali ñëpp yëpp yëpp yaatu ba ëpp ëpp géej yaa di géeju ngëneel gi ci Serigne sunu sang bi bu soobu di tooy ba fam ni moom rekk fi amee moo la may nit ñëpp xam te moo fi sax du nu tàggoo la wax ni jëy sëñ Saaliw sunu sag li waxam ju rëy yi tax ci tax ma xam ni Mbàkke moo fi sax du nu tàggoo la wax ni jëy sëñ Saaliw ko fi sa waaja waxam ju rëy yi tax ci tax ma xam ni Mbàkke moo fi sax du nu tàggoo la wax ni jëy sëñ Saaliw sunu sag du faatu nam ko xam ni tëggatu wan bi la salam bu ban ni cey sëñ Saaliw su mu fekk ay way mu fi bëgg a dem ca moom weesu la xaw ma fan la jëm xaw ma ko daal cey sëñ Saaliw borom ixlaas kuy wax na wax ci yow ku bëgg a dem nga ñëw ci yaa sëñ Saaliw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 ko wàndal di ñeneen ñi yow lañu ko war a way ala ko di baay ku fi way keneen ku dul ki ma way way ko wàndal di xamal ni way woni xuti jay ko di baay ma way a ko wàndal ko man ti way di ki ye ko di a fexe la la ñuy noppe ni nga am sa lana tawaya ate bu nu xamee borom yi di nga borom yi daas ñu war ko sant ngal ko doon lambul Serigne Saliou woo mu jaral ko ne baay way ku fi xew la

jërëjëf sang bi tuut tuut ku ne xam na ni lii mbirum temps te kilifa yaa ngi fi toog te damaa ñëw rek sëriñ bi jox ma ndigal li ma yuuxul ci sëriñ Saliou loolu sax a tax ma doxe ni ma doxe waaye fekk fi sama xarit sama sëriñ di sëriñ Xaadim Mbàkke borom Kamal ma lay ziar di jox sa wàccuwaay waaye fekk fi tam suñu turandoo sëriñ mbirum sëñ borom tawfiix nga xam ni léeg-léeg ma dugg fenn sax daa am bis maam jotaay ma dem ñu ni tawfiix egsi na rek ay egsi ñoo ni ma garab gan ma joxoon baax na sama xol seet na na ma ne ko jërëjëf sama xol seet na xam naa ba liggéey nga ñëwaat rek ma dolli garab yi <laughs> fekk jàngi maas boo gaa yi ma egsi rek ñu ngi tawfiix egsi na xam naa ni dafa gis mbirum sëy la ñu ni ma keneen ñi ñu joxoon proxaamu ba sax ñoom lañ fa matee waaye dangeen ñëwaat kër ga rek incha allah loolu nag moom day suñu turandoo di nit koo xam ne damay wax ni aw askan boo ci teralee kenn teral ga ñëpp te yow ñiy tagg yeneen ci bi ak ñiy tagg sëriñ bi gis nañ li ngay def ci ñoom kon loolu ñun ñëpp mu ko def doon te li may doon doon sa turandoo tey jii ñu soog a tege dëgg

mi ngi nii nag waajaa ngi. waaw waajaa ngi. waajaa ngi de baax ngi de waajaa ngi de sama nijaay maa ngi jégalu. di wax ni trophée bii ma ko jox. mooy trophée bii ma gagné di meilleur centre religieux de l'année. ma ci sargal Cheikh Béthio fële ca Sorano yow mi nga bokk ci suñuy parrain ñi ñu ko tuddee le di février. amuñu la dudul Géejawaay sëriñ ñu ngi koy wax amuñu dul fii amuñu lu dul yéen. ba tax na ñu di bëgg ñu ànd ak yéen bis bi ñu sot sotoo ko sant Serigne Saliou sargal Cheikh Béthio sama nijaay maa ngi jéggalu jërëjëf yàlla ñëpp am jàmm damaa dem Touba nii programme moo tax Serigne bi ni ma yëkkati rek lu néew néew soo ko dem jërëjëf Serigne Khadim Kamar moom moo ma njëkk a soq ci jotaay bi jërëjëf Mbacke